bi ñu génnee ci présidentielle 2024 boobu ba léegi Amadou Ba nag moom kenn gisagu ko mu wax lu ko waral nag moom mooy ay coow yu ci amoon ci diggante moom ak président Macky Sall bi ñu génnee ci campagne électorale bi ak présidentielle yu 2024 benn laaj rek ñu teg ko ci ki fi nekkoon premier ministre nekkoon fi tamit candidat ndax dafay génn ci APR créer parti politique am tontu bi moom mooy lettre bi ñuy gis Amadou Ba lii la ci doon wax opposition boo xamante ni démocratie moo ko laal république tamit ñu respecté ko ñu duppee ko nouvelle responsabilité ay nouvelles responsabilités yoo xamante ni mën na soppi lu bëri tabaxaat tamit lu bëre ñu koy def mu ci ànd ak ñenn ñu nekkoon ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar waxtaan yi mu ngi am ndaje yi tamit mu ngi am loolu yëpp ci ut ñoo xamante ni ñooñu la fas yéene liggéeyal am ku ci wax ne ñëpp gis nañ ni moom lu ñu ko traité balaa ñu ko doon tabb ak ci biir campagne électorale bi ñun moom la ñu àndal te moom la ñuy jàppale bu ñu noppee ci liggéey bu ñuy def ñëpp dinañu dégg muy loo xamante ni déggaguñ ci Amadou Ba mu àddu ci lu weer ba weer nag moom mooy gouvernement bi ñu ngi teg seen politique Amadou Ba ndax dina jàkkaarloo ñi nga xamante ni ñoo yor pouvoir bi léegi di ci joxe xalaatam wala mu leen nga ñi député bi nga xamante ni nag ci opposition bi la nekk àndul ak Amadou Ba mu ne lu wér ba weer moom mooy Macky Sall moom moo ko jaay te Amadou Ba amul benn moyen ngir ñëwaat ci làngu politique gi.